jër ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen ñi ñuy bàyyi xel fii si Bprod Media euh, ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel waaye mbokk yi li gën a fës si li nga xamante ni moo di xibaar yi euh, kooku noonu nga xamante ni mooy Aziz Dabala te ñu faatoon ko foofu sa technopole ca appartement moom ak ki nga xamante ni euh, mooy jarbaatam boobu di Wally ki leen rey nag. jàpp nañ ko euh, tey fii ci Touba mi ngi tudd ci turu Mamadou Lamine euh, waaye source yi ñu ngi ko jot ci li nga xamante ni mooy Seneweb euh, moom mi nga xamante ni moo di Mamadou Lamine jàpp nañ ko muy wuyoo tamit ci turu Modou Lo mbokk yi fii lañ ko jàppee ci Touba mi ngi ci brigade gendarmerie yi mbokk yi lu ci mënti am rek dinañ leen indilaat fii dinañ leen indilaat leeral yi ci xibaar yu wóor fii te sur ci Bprod Media jërë ngeen jëf mbokk yi.